mbokk yi jaa ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak Alfayda FM rajo bu mag bi nekk ci Medina Baye taataan na leen kàddu yi nga xam ne xalifa bu Medina Baye sëriñ Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh al Islam moom moo ko nar a yëkkati woote ko nii gannaaw bi mu ba noppi ci jumaa ji ci teewaayu mbooloo mu takkoo takku ba ci porte-parole bu Medina Baye di Cheikh Mouhamadul Seyda Ali Cissé mu ngi si ak yeneen i kilifa diina ñu teewlu xalifa bi. mbokk yi sëñ bi asalaamaaleykum. wax. salaamun warahmatullahi wabarakatuh. rabbin rahim mu ne ñu wax salaamun qawlan min rabbin rahim salaamun qawlan min rabbin rahim salaamun qawlan min rabbin rahim salaamun qawlan min rabbin rahim salaamun qawlan min rabbin rahim yàlla loolu nga ñu jafe-jafe yu yu ñuy dund ci jamono jii. yi ñuy yoo xam ne Sénégal mosu koo xam. yoo xamante ni Sénégal mosu koo xam. daf ko daan dégg rek. daf ko daan dégg rek. waaye wàcc na ci suñ kaw. waaye wàcc na ci suñ kaw. ci ci namm yàlla. ci namm namm yàlla. ñu ngi muñ loo xam ne yàlla teg nañu ko. ñu ngi muñ loo xamante yàlla teg nañu ko. waaye teg ñu ngi koy ñaan. waaye itam ñu ngi koy ñaan. di ko wax. di ko wax.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 yàlla bu ñu yàlla teg lu ñu àttanut ci suñu réew. yàlla bu ñu yàlla teg lu ñu àttanut ci suñu réew. yàlla na yàlla dimbale ñu. yàlla na ñu yàlla dimbale. gis ngeen fan yi gis ngeen fan yii. dëgg-dëgg Sénégal dund na ay jamono yoo xam ne. dëgg-dëgg Sénégal dund na ay jamono yoo xamante ni. jamono yu métti la. jamono yu métti la. doomi Sénégal mooy dee. doomi Sénégal mooy dee. këri Sénégal moom la ñuy lakk. këru Sénégal moom la ñuy lakk. kilifa Sénégal moom la toroxal. mbaax yi ñu xamoon yëpp. mbaax yi ñu xamoon yëpp. daan ko dund. ci suñuy baay ba léegi. ci suñu baay ba léegi. ñu ngi door a gis ci jamono bii. nit ñoo xam ne. nit ñoo xamante ni. dañoo gis na mbaax yooyu du dara. dañoo gis na mbaax dañ koy soppi. dañ koy soppi. waaye ni ñu koy soppee. ndax dañ koy soppi ci kaw xam-xam. waaye ndax dañ koy soppi rek ci suñu kaw bànneexi bakkan. wala ndax dañ koy soppi rek ci suñu kaw bànneexi bakkan. mu tegu ci kaw xam-xam. xam-xam yàlla dina ko dimbale juyanti ko yàlla dañu dimbale juyanti ko waaye lu tegu sa bànneexi bakkan waaye lu tegu sa bànneexi bakkan lii ñu gis rek mooy xew yii ñu gis rek mooy daal xew rayante ci mbedd mi rayante ci mbedd mi lakkante ay kër lakkante ay kër te ñan lañ ñii dee ñan lañ te ñii dee ñan lañ ñan lañ ay doomi jàmbur. ay doomi jàmbur. am yaay am baay. am yaay am baay. dem ca mbedd ma. dem ca ma. ñu ñëw ne ko sa doom dee ñu ñëw ne ko sa doom am yaay am am jabar am doom. am jabar am doom. ñu ñëw ne ko seen jëkkër dee lu nekk rek. lu nekk rek. di xew di bett nit ñi. di xew di bett nit ñi. te kenn xaaru ko te kenn xaaru ko ñëw na. ñëw na waaye nag ñëw ci. pexe yoo xam ne waaye ñëw ci pexe yoo xamante ni dëgg dëgg dëgg dëgg ñuy wax nañ jamono bii ñu toll ñu ngi wax jamono bii ñu toll iblis moo koy atte iblis moo koy atte bu ko defee ay ndawam rek lay ebal su ko defee ay ndawam rek lay ebal lépp loo xam ne bëgg na koo yàq rek ay ndawam yàqal ko lépp loo xamante ni rek bëgg na ko yàq ay ndawam daal ko yàqal Sénégal Sénégal di ngeen dégg ñuy wax société civile da ngeen dégg ñuy wax rado. dangeen dégg ñuy wax rado. da ngeen dégg ñuy wax démocratie. da ngeen dégg ñuy wax démocratie. da di dégg ñuy wax baat yooyu yëpp. da dégg ñuy wax baat yooyu yëpp. waaye baat yooyu yëpp su fekkee xam nañ ko ni ko war a xamee. waaye baat ko bu ñu ko toppee du ñu indi ci lii ñu agsi. dëgg-dëgg suñ ko toppee du ñu indi ci lii ñu agsi nii tey. waaye wax dara. jëfe wax dara. jëfee leneen. jëfee leneen. safaan rek lay indi. gannaaw safaan nag. safaan bi dara baaxu ci. ndax lii xew yëpp yéen gis ngeen ko. ndax lii xew Sénégal Sénégal fi nekk ci boppam. Sénégal fi nekk ci boppam. yëgut jàmm ci biiram. ndax boo xamee lii xew nii. ak xam li ci mën a topp. ak xam li ci mën a topp. ku nekk war ngaa tiit. ku nekk war ngay tiit. pour sa Sénégal gi. pour sa Sénégal ndax. ndax am na nit ñoo xam ne. am na nit ñoo xamante taxawuñu rek. lu dul dégg na xay am na place sàngam sàngam rek. ñu boroxlu ci. ñëw. lu leen neex ñu def ko fa. lu ñu naan xale yi la. ñu naan nangam la. ñu naan nangam la ñu fekk ñun bañ koy taal. fekk ñun xamuñ woon ne loolu yëpp dañu ci fekk. xamuñ ne boo demee ba àgg foo xam ne nag. boo réew mi ñi ñu ko dénk mënatuñ koo saytu nañ ko war a saytoo. ñi ñu xëccu ne dañ koy ut. ñii xëccu ne dañ koy ut. bu ñëwee duñ ko mën a saytu. bu ñëwee duñ ko mën a saytu. bon nag dañ def ndànk ñun ñëpp kon nag léegi dafa naa ko ñun ñëpp. ñu seet. ñu seet discours kat yi seet ni ñuy discouré discours kat yi seet waxkat yi seet ni ñuy waxe waxkat yi seet ñuy waxee ndax baat yooyu ñuy wax yëpp ndax baat yooyu ñuy wax yëpp droit de l'homme euh, société civile société rado yooyu yëpp ñu ngi fi waaye amuñ discours buy waxee ak nit ñi ndax bu fekkee société civile la ndax fekkee société civile la xaw ma ku leen ko fal xaw ma leen ko fal waaye euh, civil yi la war a toppatoo seen jàmm ñoom ñëpp ñu am kóllëre. ñoom ñëpp ñu am kóllëre. ñoom ñëpp ñu am dal. waaye du société civile. ni ma jàngee. ni mu ni ma gisee sama. ñi may roy. mu ne ni gisee ñi may roy. ñooñu roy pour indi ko fii. ñooñu rek laay roy indi ko fii. loolu du xam-xam. loolu du xam-xam. te du société civile. te du société civile. société civile. société civile. civile yi moo ko tax a jóg. civile yi ñoo ko tax a jóg. war naa am discours boo xam ne. war na am discours boo xamante ni. ku ko dégg. ku ko dégg. da nga xam ne jéngut jëm fenn. da nga xam ne discours bi jéngut jëm fenn. dafa ñëw rek pour population bi. dafa ñëw rek pour population bi. bu ko defee bu boobaa. bu ko defee bu boobaa. population bi dana ci mën a jëriñ. population bi dana ci mën a jëriñu. rado. rado seen wax yëpp. seen wax yëpp. ñoom itamit ñu ne jàmmi nit ak liberté nit la. ñoom itam nekk jàmm wax nekk جاء jàmm jam lañ bëggal nit ñi jàmm lañ bëggal nit ñi liberté lañ bëggal nit ñi liberté lañ bëggal nit ñi kon nag waroon nañu am benn discours kon nag waroon nañu am benn discours boo xam ne boo xamante ni du fii laa jàng jëm du fii laa jàng jëm du fii laa jàng jëm du fii laa jàng jëm jànguma jëm ci pouvoir jànguma jëm ci pouvoir jànguma jëm ci position jànguma jëm jëm ci position waaye dama jàng jëm ci sama peuple waaye dama jàng jëm ci sama peuple jàngal ko jàngal ko xamal ko xamal ko yee ko yee ko mu xam nu mu war a sàmmee mu xam naka la war a mën a sàmmee réewam réew mi Sénégal Sénégal bu nekk ngay ndaw ngay mag ngay ndaw jigéen ngay góor ngay jigéen ngay góor yow la yàlla teg ci sa baat ni la sàmm ko yow la yàlla du politique du politique rek ñoo ko war a sàmm du politique yi rek ñoo ko war a sàmm du opposition yi rek ñoo ko war a sàmm tout euh, euh, chef religieux yi rek ñoo ko war a sàmm. ñun ñëpp. ñun ñëpp. ñoo bokk ci responsabilité boobu. ñoo bokk ci responsabilité boobu. ne Sénégal yàlla nga ko teg suñu ay dox. ngay ndaw ngay mag ngay góor ay jigéen. ngay ndaw ngay mag ngay góor ngay jigéen. yàlla nag lim la sant. yàlla nag lim la sant. boo ko sàgg dina la ko laaj ëllëg li ma la santoon noo ci def. boo li ma la santoon noonu ñii rey nit ñi. ñii ñi danañ taxaw ci kanam yàlla mu laaj leen. danañ ñii lakk kër yi nit ñi. ñii lakk taxaw ci kanam yàlla mu laaj leen. danañ taxaw ci kanam yàlla mu laaj leen. ak rey nit ki rey nga nit ki mu dee. ak itam rey ki nga nit ki këram. yàqal nga nit ki këram. après loo faj. ndax faj nga nga dara loo xam ne dina delloo euh, Euh, njëriñ Sénégal yëpp. ndax loolu ñu def dina delloo njëriñ Sénégal yi. ndax loolu wala daf leen di delloo tiit ak ñàkk sago. wala daf leen di delloo ci tiit ak ñàkk sago. wala daf leen di delloo ci kenn ku nekk. wala daf leen di delloo amatul jàmm. ci këram. ci këram amatul jàmm ci njabootam. jàmm ci njabootam. ku nekk ngi tiit. ku nekk ngi tiit. kenn xamul lii xew. ndax kenn xamul lii xew. ndax saytaane xas na tàkk. ndax saytaane xas na tàkk. te bu tàkkee moom fu mu jëm yàlla rek ko xam. ndax saytaane ko xasee tàkk fu mu jëm yàlla rek moo ko xam. yàlla fegal. nañu ko yàlla fegal. yonent wax na ne. yonent bi ngi nelaw. fitna ngi nelaw. yow yàlla ku ko ee yàlla nga ko rëbb. te ñii. te ñii. fitna rek la ee. te ñii fitna rek la ee. peuple bi ñuy wax na ñoom la ñuy xeexal. peuple bi ñuy benn peuple. ndax suñ xeexaloon peuple bi. ndax dañ xam buñ taalee ay wii. jàngat ko bu baax a baax. lan moo ci mën a bàyyeekoo. lan moo ci mën a bàyyeekoo. lan moo ci mën a topp. fan la ay nit di jógee ñëw. fan la ay nit di jógee koo ñëw. ay ar ak seeni arme. ak ñu ngi taxaw fees dell àddina bi. te ñu yàkkamti ku kaay rek. yàkkamti ñu yàkkamti fu xay jógee rek. wala ñu ñëw raxlu ci. ñu ñëw raxlu ci. di def loo xam ne. di def loo xamante ni. bi du ko def moromu Sénégalais. Sénégalais bi du ko def mukk moromu Sénégalais. Euh, julli parce que Sénégal ay julli lañu wala ay chrétien lañ. lañ. ku ci nekk sa diine yar na la. ku ba nga jox nit sa sa mbokki nit. ba daraja bi nga xam ne elloo na ko. daraja ko. dana ko fonk. da ko jox daraja. da nga ko jox daraja. da ko dimbale. danga nga moom. ñun ñëpp ñu ànd jàppalante. ñun ñu ànd jàppalante. ngir njëriñu Sénégal. ngir njëriñam. Sénégal du boole nit ñi ñuy xeex. du boole nit ñi ñuy xeex. Sénégal njëriñam. xaar njëriñam. du bàyyi nit ñuy rayante ci mbedd meeg la. bàyyi nit ñi mukk ñuy rayante ci mbedd mi. Euh, euh, euh, Sénégal Sénégal amut ci dara. Sénégal lim soxla. Sénégal am ngeen xam-xam nee ngeen. wax ngeen ne am ngeen xam-xam. wax ngeen am mën ngeen a diriger réew. mën war leen ñu xam-xam boobu. ci seen góorgóorlu. ci sa xeex xiif Sénégal. xeex ñàkk Sénégal. xeex ñàkk Sénégal. xeex feebar Sénégal. ñu gis leen ngeen taxaw ci taxawaayu dëggu. taxaw ci taxawaayu dëggu. amul gouvernement amul opposition. amul gouvernement ñun ñëpp. suñ liggéey. mooy suñ peuple bi. dañ ko génne ci coono. coono coono yu nekk nag. coono yu xiif. coono bala ñoo dajee. bala ñuy dajee nit ñi ñuy xeex ci mbedd bi. bala ñuy dajale nit ñi ñu génne sax ñuy xeex lu leen génne. dëgg dëgg dëgg xeex pour dara dara yëkkatiwu leen. wala ñu gën a bëri ci ñoom. mooy dajji kër jàmbur yi dajji bitig yi jël seen alal yi rek. mooy dajji kër jàmbur yi dajji bitig yi jël seen alal rek. te loolu. te ku ne xam na ne xiif koy def loolu. ku ne xam na xiif moo koy def loolu nit. muy opposition. muy pouvoir. muy pouvoir. ñu leen di ñaan. ñu leen di ñaan. ngeen dajale seen kattan. ngeen dajale seen kattan. kattan bi li ngeen ciy bëgg ut. ngeen mooy na naka ngeen di defalee Sénégal muy réewu jàmm. jaamu. naka ngeen di xiire Sénégalais yi ñu dem liggéey naka ngeen di xiiree yi naka ngeen di xiiree xale yi ñu dem liggéey yi te liggéeyukaay ngi fi ba bëgg a dee. te ngi fi bëri ba bëgg a dee. suuf a fi ndox a ngi te luñ laaj suuf laaj ndox rek mu defal ñu. te laaj suuf laaj ndox rek mu defal waaye bëggeen jël ñépp nag. waaye ñu bëgg jël ñëpp nag. dajale leen Ndakaaru. te kenn amu fa liggéey. te kenn amu fa liggéey. bu mu gisee fu porox ndollu rek. rek. daal dafay porox loolu. daal dafay ay daal di am. loolu yëpp nag. seen discours yi ngeen di discours. yi ngeen di faral di mooy indi ay yii yëpp. parce que discours. dañuy defendre démocratie. dañuy défendre ak mooy lan. ak mooy lan. te réew yu civilisé yi passé nañ ko sox fàttali ko. réew yu civilisé yi. réew nañ ko. passé nañ ko fi mu ne après démocratie la ñuy wax. waaye démocratie waxatu nañ ko. te Sénégal. ci nature ci yaram. ñoom ñëpp ay démocrate lañ. ndax foo dem rek. da gis ne ñoom ñëpp a yem. jotaay baa ngi nii. jotaay baa ngi nii. kenn xàmmewut kenn. kenn xàmmewut kenn. ay Sénégal rek ñoo fi daje. ay Sénégal rek ñoo fi daje. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla am nañ imaam dinañ ko jiital. am nañ imaam dinañ ko jiital. am nañ ay borom xam-xam dañ leen déglu. nañ borom xam-xam dinañ leen déglu. foofu la yem. foofu la yem. kenn nekkul ci kaw kenn. kenn nekkul ci kaw kenn. kenn euh, exploité wut kenn. kenn exploité wut kenn. ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñoo ko bokk am benn kaddu bi. ñoo ko bokk am benn kaddu bi. su fekkee mbir naa ngi nii. am na kaddoom. am na kaddoom. xew xew xew na. xew xew am na. dana joxe kàddoom. dana joxe kàddoom. waa Mérina yëpp dañ ci ànd ak moom. waa wala ñu baax ñi nekk Medina yëpp dañ ci ànd ak moom eh, dëgëral ko ñu xam ne lii mooy suñu taxawaay bëgguñ xay ci réew mi dimbale wuñ kuy taal ay ci réew mi ànd ñoo kuy taal ay ci réew mi dañuy dimbale suñ suñ suñu réew suñ population ñu ànd mën a nekk nit ñoo xam ne nit ñu civilisé lañ nit ñu xam ni ñuy xeexee seen i te du ànd ak tur deret. te du ànd ak lakk kër. du ànd ak lakk kër. du làng ànd ak lakk dem góorgóorlu. dem liggéey ba am otoom. nga ñëw taal ko. nga ñëw taal njëriñ la ba moromu Sénégal bi moromu Sénégal ba am këram nga ñëw lakk ko nga ñëw nga ci am ban yi fi nekk société yi Sénégal yi di ci jëriñu Sénégal yi di ci amee dépasse nga ñëw lakk ko nga ñëw lakk ko dafa nekk nga jël ko yóbbu nga jël ko yóbbu koy liggéeyal ndax Sénégal ngay liggéeyal ndax yaa ngi liggéeyal benn idéologie boo xam ne boo xam ne liggéeyu idéologie bu xat la. idéologie bu xat la. xew xew am na Sénégal. metti na waaye xam nañ. waaye wala boog ah, yaakaar nañ ne am na ñu xam. wala xew xew bi li xew lii rek la. nañ dem rek la rek mu jeex. buñ ko regle ko réglé mu jeex. te mën naa réglé waaye. nekk fi di am ay parparloo. waaye nekk fi di ñun ànduñoo ak Macky. ànduñu ak Macky. ñun ñun ñii ànduñu ak Macky. ñii ànduñu ak keneen. waaye. seen ñàkk ànd googu yëpp. waaye seen ñàkk dafa war a nekk profit boo xam ne. waaye dina ci jëriñu. yi dana ci ne ñun. liñ bëgg liñ bëgg mooy ñu bokk nekk nit ñoo xam ne mooy ñu bokk nekk nit ñoo xamante ni nit ñu mat lañ ay nit nit ñu mat lañ ay nit nit ñu mën a sàmm li leen yàlla dénk la nit ñu mën a sàmm li leen yàlla dénk la yàlla yonent wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yéen. kenn ku nekk ci yéen. yàlla koy sàmmloo. yàlla koy sàmmloo. te ku nekk la la yàlla di sàmmloo. te di sàmmloo. yàlla ko laaj. yàlla dina la ko laaj. Sénégal. Sénégal. Sénégalais yi. Sénégalais yi. la ko yàlla sàmmloo. la ko yàlla sàmmloo. muy Sénégalu pouvoir. du Sénégalu pouvoir. kese kese. kese kese. du position kese kese. du position kese kese. waaye ñun ñëpp ñooy ànd. waaye ñun ñëpp ñooy ànd. jëm ci loo xam ne. jëm ci loo xamante ci la ci la Sénégal. ci la Sénégal. di gisee boppam. ci di gisee boppam. ci la Sénégal di amee jàmm. ci ci la Sénégal di amee jàmm. yéen a ngi dégg. yéen a ngi dégg. Irak la fa xew. Irak la fa xew. yéen a ngi dégg Congo la fa xew. yéen a ngi dégg Congo la fa xew. yéen a ngi dégg euh, Afghanistan la fa xew. dëgg-dëgg Afrique Gnaawul Sall dafa xewoon. réew mu am alal la. réew mu am alal la. waaye amut ay nit yu yu mat. waaye amul ay nit yu mat. ba mën a saytu seen alal jooju. ba mën a saytu seen alal jooju. gars yi ñoo porox ndollu rek. gars yi ñoo porox ndollu rek. jël seen alal ji yëpp yóbbu ko. jël seen alal ji yëpp daal di ko yóbbu. Sénégal ñu ngi koy bëgg a tudd ci réew yi nar a am alal. Sénégal ñu ngi koy bëgg a tudd ci réew yi nar a am alal. ñi nga xam ne alal rek la ñuy ut. ñi nga xamante ni alal rek la ñuy ut. porof ndoll bu ñëwee jël suñu alal jooju rek. porof bu ñëwee jël suñu alal jooju rek. moom la xaar. moom la xaar. te yii mën naa ubbi porof ndoll yooyu. yooyu. ndax déjà France dégg ngeen. ndax déjà France dégg mu ne dina yónnee junne. ak ak juróomi téeméeri soldaar. mu ne dana yónnee junne ak juróomi téeméeri soldaar. ngir ñu ñëw aar seen intérêt yi nekk fii. ngir ñu ñëw aar seen intérêt yi nekk Sénégal. benn porox ndollango. benn yeneen porox ndollu. yeneen naa ubbeeku. mën na ubbeeku. bu ñëwee ñun rek ñoo ciy loroo. bu ñëwee ñun rek ñoo ciy loroo. kon nag yéen ñi nga xam ne yéen seq coow lii. kon yéen ñi nga xamante ni yéen a seq coow lii. dellu si leen ci seen xel. delloo si leen seen xel. dellu leen ci seen nattale. dellu leen seen nattale. dellu leen ci seen i discours. dellu leen ci seen discours. ngeen xam ni ngeen di wax ak nit ñi. ngeen xam ni ngeen di wax ak nit ñi. ngeen xam nu ngeen di yaree nit ñi. ngeen xam itam nag ngeen yaree nit ñi. bu leen di discours su loo xam ne daf leen di taal rek. bu leen di discours du discours boo xam ne daf leen di taal rek. ñuy daanu ci mbedd mi. ñuy daanu ci mbedd mi. lu leen neex ñu def. lu leen neex ñu def. dëgg dëgg loolu. dëgg dëgg loolu. fekkee ñi koy jiite. fekkee ñi koy am nañ xam am nañ xam-xam itam. wane wuñ dayoo xam seen dayoo bopp rek la ñu te loolu ñun Sénégal yëpp ñoo war a ànd na bañ koo nangu. Euh, am nañ gouvernement. nañ fonk suñuy gouvernement. nañ fonk seeni gouvernement. nañ fonk jàngale. nañ fonk seeni i i wane. du ñàkk bopp. du waaye loolu la. loolu moo war a am. loolu moo war a am. ndax amatuñ gouvernement. kenn jiitetuñu. kenn ban anarchie moo fi am bu boobaa. ban moo fi am bu boobaa. kenn moomatu kenn. kenn moomatu kenn. kenn moomatu dara. xeex nañu ak yi dàq nañ leen. xeex yi dàq nañ leen. ban ndam la. koo xam ne sa jàmm lay utal. koo xamante nga xeex moom ba dàq ko. nga ban ndam nga am. amoo benn ndam. amoo ndax li nga yàq. ndax moo gën a bëri. nga defal ci li nga defal ci loolu. nañ delluwaat dañ nañ delluwaat ñu ngi leen di ñaan yéen suñu intellectuel nee na ñu ngi leen ñaan d'accord waa daara lañ ñun d'accord waa daara lañ ay analphabète lañ comme ni ngeen ñu koy waxee comme ni ñu koy waxee waaye nag waaye nag yéen ñi nga xam ne yéen a instu yéen lañ jàngal. waaye yéen ñi nga xamante ni yéen lañ jàngal. xam leen ni ngeen di wax ak ñi nga xam ne jànguñ boobu. xam leen ni ngeen ay wax ak ñi nga xamante ni jànguñ. ndax ñu mën a xam li ngeen di wax. ndax ñu mën a xam li ngeen ay wax. waaye li ngeen wax liñ ci gis amul benn njëriñ. waaye li ngeen wax nii liñ ci gis amul benn njëriñ. Dakar. Dakar Kaolack. Kaolack Casamance. Casamance eh, Kaw eh, dëkk dëkk yu mag yëpp. dëkk yu mag yëpp. ay rek nga fay fekk ñu ngi ko fa taal. ay rek nga fay daal di fekk ñu fay taal. mais pourquoi. ay eh, pourquoi. kuy jëriñu ci ay boobu. kuy jëriñu ci ndax ñu Sénégalais ñoo ci jëriñu. ndax ñun Sénégal ñooy jëriñ ci ay ndax ñun Sénégal ñooy jëriñu. ndax nañ suñ gouvernement. daane nañ suñ président. ñu ngi toog léegi amuñu gouvernement amuñ président. président. luy xew bu booba bu boobaa. kenn xamu ko. jàngal leen. jàngal bii di ñëw. génération bii di ñëw. naka la téye seen réew. naka la lañ koy bëggee. naka lañ koy bëggee. waaye na xam ne. lii ngeen di jàngale waaye mooy toxu ci ñoom rek mooy taxu ci ñoom boo toogoo ci bu ngeen toogee fi ngeen bëgg a toog rek ngeen toogee fi ngeen bëgg a toog joxe ne du ngeen fi toog ñoom itam ñu yore ñu fi toog du ngeen fi toog bu ko defee coow du jeex du xaaj nañ dellu ci xam yi ngeen jàng nañ ci dellu ci xam-xam yi ngeen jàng nañ ci dellu nañ ko xóotal nañ ko xam waaye bu ñu am ci tell tell boobu rek. waaye bu tell tell boobu moo indi musiba yii. tell yal na yàlla ñuy dimbale. yal na ñu yàlla ngi ñaan Macky. ñu ngi moom la yàlla teg ci kaw bopp réew mi. moo gën a moo ëpp responsabilité. moo ëpp responsabilité. ci kanam yàlla. ci ñu ngi koy ñaanal yàlla. ñu koy ñaanal yàlla. dimbale ko mu xam loolu. yal yàlla dimbale ba mu mën a xam loolu. bu ko xamee yàlla na ci def ay pexe. su ko xamee yàlla na ci def ay pexe. yéen ñi ci suuf di xëccu. itam ci suuf di xëccu xëccoo leen xel xëccoo leen ak xel xëccoo leen ak bëgg seen réew xëccoo leen ak bëgg seen réew bakkan yi daanu dee bakkan yi daanu dee yéen la ko yàlla di laaj yéen la ko yàlla di laaj parce que yéen a leen yóbbu fuñ dee parce que yéen yéen a leen yóbbu fuñ daal di dee yéen a leen wax lu tax ñu dee yéen a leen wax lu tax ñu dee kon génnu leen ci kon génnu leen ci te ëllëg dañ leen ko laaj te ëllëg kon danañ leen ko laaj laaye jaa ngi wax léegi ne laaye jaa ngi wax léegi mu ne yàlla yow yàlla. kenn yàlla yàlla nee na. yàlla nee na. kenn laa jàpp ma kenn muy sama doom. kenn laa jàpp ma kenn def ko doom. waaye. waaye sama xarit waaye ku sama xarit buntu baa ngoog ubbeeku na buntu baa ngoog ubbeeku na te nag yéen ñëpp li ngeen di def te yéen ñëpp li ngeen di def ëllëg di ngeen taseeg man ëllëg bu ngeen taseeg man ku nekk dana ma wax lam doon def lu tax mu def ko ku nekk dana ma wax di la tax la ma def lu tax la koy def daal ya, loo ci jublu woon loo ci jublu woon ndax ju xanaa duñu wax ne xanaa duñu wax ne dañ koy jublu woon rek rey nit ñi ci mbedd mi xanaa duñu wax ne dañ koy jublu woon rey nit ñi rek ci mbedd mi nii dañoo jublu woon rek taal taal kër nit ñi dañoo jublu woon nga taal kër nit ñi rek taal oto nit ñi taal oto mais lu tax. mais ban njëriñ la am pour Sénégalais yi diw ñàkk na otoom lu ci suñu yoon. diw am na otoom lu ci suñu yoon. am waaye góorgóorlu. waaye góorgóorlu diw moomu am oto. diw moomu am oto. am kër. am nga ne ko li des li li des nga moom ko. nga ne ko li des sa nga moom ko. jéem ko dugal foo xam ne Sénégalais dinañ ci jëriñoo. jéem ci foo leen borom xaalis ñu tabax ay usine. xaalis ñu tabax ay usine. projet yoo xam ne. sant dina ci jëriñu. Sénégal dana ci waaye dem lakk këram. waaye dem leen lakk ba. dem leen ñàkk xaalisam ba. ñaar ñëpp ko. ñaar ñëpp perte ko. te loolu amul benn njëriñ. te loolu amul benn njëriñ. am na benn sëriñ. mu ko tariqa tijaan. jox ko tariqa tijaan. nekk sëriñ boobu ñaar sëriñ ba gaañu génn àdduna. mu ñëw ci doomi sëriñ bi. mu ñëw ci doomi sëriñ bi. bees lu ci moom. bees lu ci moom. liggéey ak moom fukki at. liggéey ak moom fukki at. daal dégg beneen sëriñ. dem bees lu ca kooka. sëriñ bi oo ko. sëriñ bi oo ko. ne ndax dama dégg na da nga dem bees lu ci diw. ne ko dama dégg na da dem bees lu ci diw. mu ne ko waaw. mu ne ko waaw. mu ne ko bon dagg naa la ci tariqa bi. mu ne ko bon dagg naa la ci tariqa bi mu ne ko déet bul def noonu. mu ne ko déet bul def noonu. sa baay moo ma joxoon wirde. sa baay moo ma joxoon wirde. naa ci suufam ñaar fukki at. wirde naa ci suufam ñaar fukki at. li ma wirde yëpp may naa ko. li naa ci sa suuf. may naa la ko. li ma wirde yëpp may naa la ko. bàyyi ma benn benn bi ma am ci waa ji rek doy na ma. waaye bàyyi ma dem ci waa benn bi ma am ci moom rek doy na ma. kooku xam na marché. kooku xam na marché. xam na njëriñ. xam na njëriñ. bul bul bul pertal fanweeri at yëpp ci neen. kooku bul pertal sa fanweeri at yëpp ko ñu ko ñu ma ko joxoon jëriñoo ko. bàyyi ko ñu ma ko joxoon ñu ko kooku am na xam-xam. kooku am na xam na itam lan mooy njëriñ. waaye jàng naa. waaye jàng naa. bindkat laa. bindkat laa. koy jàngal koy bindal. waaye koy jàngal ak koy bindal. ndem résultat bii lay joxe. ndem résultat bii lay joxe. ndem résultat bii lay joxe. ndem résultat yàlla ñu yàlla musal. yàlla ñu yàlla musal. yàlla ñu yàlla sàmmal Sénégal. yàlla ñu yàlla sàmmal suñu Sénégal. ñu ngi nuyu ñu ngi kilifa yëpp. ñu ngi nuyu kilifa yëpp. ñu ngi leen di ñaan dinañ wax naan kilifa diine yi wax leen wax leen ñu ngi leen mu ne nit ñaa ngi naan kilifa diine yi wax leen wax leen wax nañ ba bëgg a dee kilifa diine yi wax nañ bay bëgg a dee waaye booy wax ak du dégg waaye booy wax ak du dégg daanaka waxoo daanaka waxoo te ñi ñëpp seen bopp seen bopp rek lañ gis seen bopp rek lañ dégg te ñi daanaka seen bopp rek lañ gis seen bopp rek lañ dégg ñooñu neexu ñoo waxal te ñooñu kon neexu ñoo waxal kon nag li ñu am ñun nag li ñu am bon li ñu am bon nag li ñu am mooy ñu ngi ñaan yàlla kon ñu ngi ñaan yàlla yow yàlla yow yàlla borom salaamun qawlan min rabbin rahim rahim borom salaamun qawlan min rabbir rahim yàlla ñu ko yàlla ñu ko may yàlla ñu ko may yàlla ñu ko sa wàcceel ci Sénégal yàlla nga ñu ko wàcceel ci Sénégal yow yàlla borom laatu axis naa in nasina yàlla ci

tam baax yal nañu yal nañu may yalla nga ñu may ñu xam niñ koy tasaare ñu xam lañ ko wara mëna yalla buñ lor ken, yalla buñ lor ken, yalla buñu ken lor yalla buñu ken lor yalla buñ mënal yalla buñ tooñ kenn yalla buñ tooñ kenn yalla buñu kenn tooñ yalla buñu kenn tooñ yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal ci yalla am nga ci yalla am nga assalamu alaykum assalamu alaykum mbokk yi kaddu yaangi nonu ñu ngi ñaan borom bi may ak euh, topp comme ni ko bi santaane kilifa yi nga ñoo yor décision yi nga xam ne ah, tey fu réew mi toll ñoom ñoo ci mën dara comme ni ko sëriñ bi waxee ci biir waxtaanam yàlla may leen nopp dégg ba jàmm rek dellu si waat su suñu réew euh, di Sénégal wéy leen di déglu Alfayda FM li ñëw mooy dàq fuuf li weesu jaa ngeen